أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi jël tey ad duruus al mustafaada min qissati daawud ñoo ngi doon nekk ci doon jàngale histoire yonent yàlla daawud yàlla def mu jeex ñu war a jël tey ay bind ci loolu ñu doon jàng fukki tomb yoo xam ne war nañ ko jëriñoo ci dund yonent yàlla daawud alayhi salaam loolu ba ca njëkk mooy annal mu'min ida waada waadan fala budda an yafi bi ahdi way gëm yàlla kooku ñu naan jullit te mu gëm yàlla tabaraka wa taala su fekkente ne diggée na ab dikk na yëg ne la budda loolu mu diggee daf ko war a matale daf ko war a sàmm loolu mooy lu njëkk lu ñu war a jàng ci qissa daawud alayhi salaam mooy ku gëm yàlla soo waxee mbaa nga diggee na nga yëg ne loolu nga wax wala loolu nga diggee da nga kaa war a matal rawatina nag bu dee lu baax xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na lu mu wax ne ab jullit bu yéenee def lu baax bu ko deful sax dañ koy bindal tiyaaba waaye bu yéenee def lu bon kenn du ko bind lu dul mu def ko su ko defee it benn bu bon boobu la ñuy bind ñaareel mooy anna allaha yastafi minal man yash man yashaau min ibaadi yàlla mooy tànn ku ko neex ci jaamam yi loolu dafa war a leer ci ñun yàllaay tànn yàllaay dogal yàlla mooy def lu ko neex moom yàlla faqad raayna kayfa anna allaha istafa taalut min bayni haulai nnaasi jamian li yakuna malikan alayhim gis nanu waa jooju ñu naan taalut yàlla tànn ko def ko buur te ña gënoon a yemamaay ña gënoon a néew doole ca dëkk ba jógal ña gënoon a néew doole ca dëkk ba moom ca la bokk waaye gis ngeen keroog yàlla ci coobareem moo ko neex mu daal di koy tànn mu daal di koy def buur kon yàlla mooy tànn ku ko neex yàlla ko tànn yokk ko kàttan yokk ko xam-xam waaye yokk ko jëmm jë kon tànn téef ci loxo yàlla la nekk même yonent yi sax yàlla daf leen a gënalante tilka rusul faddalna baadahum ala baad yàllaay tànn lu ko neex mu def yàlla tànn taalut ci kaw gaaya loolu mooy ñaareel ñetteel ann al ibra fi l jihaadi laysa bi kasarati l junuudi ñetteel bi ñuy jàng di ko jëlee ci dundu daawuda lu ñu war a waaroo war cee jël leçon mooy jihaad loolu ñu naan xeex wala guerre nekkul nga am arme mbooloo mu bari am naa mbooloo mu bari rek naa dem guerre yi naa dem jihaad yi déedéet am naa ay soldats yu bari rek naa dem xeex yi déedéet am naa arme bu doy arme bu doy ak armée bu doy ñaar armée ak arme rek naa dem jihaad yi déedéet waaye ci yéene bu sell lay tegu ñu préparé gaa yi seeni xol ba yàlla nekk ci su ko defee buñ demee mën a gañe mbooloo mi lu mu tuuti tuuti tuuti kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun kasira bi iznillahi wallah ma sabirin gis nañ mbooloo mu néew mu noot mbooloo mu bëri lu tax ndax yàllaa ngi ànd ak ñi muñ kon ndekke mbir yi du ñun liñ koy foog léeg-léeg nga gis mbooloo mu bari rek daal ne nañ dem xeex léeg-léeg nga gis ko am doole naa di fekk du loolu mbir mi du doole mbir mi du ay arme waaye mbir mi ngëm yàlla la tabaraka wa taala goo xam ne sellal moo koy poussé victoire doog a am gis nañu bu baax diggante jaaluut ak taaluut yàlla moo tànn taaluut mu rey jaaluut lan la ko reyee benn xeer bu ndaw xeer la ko dóor rek mu daal di dee xam ngeen ne loolu kattanu yàlla moo ci nekk waaye ponkal moomu nga xam ne daanaka bu dëggee benn tànkam day nekk pax ndax ngande gi mu ngande ak njoolaay bi la mu toll ak ni borom xam-xam yi wax ne jaalut noonu la tolloon su ko ab xeer reyee xam ngeen ne yàlla moo ci dugal loxoom ñeenteel mooy anna nasra laysa bi kasarati l adadi wal ataadi wa innama bi quwati l imaani wal aqida ñeenteel bi ñuy jàng di ko jëlee ci dund yonent yàlla daawud mooy ndimbal ndam kenn du ko jëlee ci mbooloo kenn du ko jëlee ci ay jumtukaay fan lañ koy jëlee mooy ci ngëm yàlla ak pas-pas bu dëgër wa min samma fa inna nasra min indillahi wahda jalla wa ala loola tax ñu war a jàng gëm ne ndimbal ci yàlla lay bàyyeekoo mais du bàyyeekoo ci kenn wa man nasru illa min indillahi ndimbal du bàyyeekoo ci ku dul yàlla gis nañu mbooloo daawuda ba ñuy dem ak nañu tuutee waaye terewul la leen encouragé ba ñu dem mooy ngëm ak pas-pas bu dëgër moo tax ba ñu demee sunu borom subhanahu wa taala may leen ndam wala mooy ñeenteel juróomeel bu ñuy jàng mooy man aasha ala taatillahi fa inna allaha yuhibbuhu képp ku dund ci topp yàlla yàlla da lay bëgg képp ku dund ci topp yàlla sikk nekk ci ne yàlla da lay bëgg waaye yàlla du yem ci bëgg la moom yàlla wa yulqi mahabbatahu fil kawni kulli yàlla day jël sa cofeel daal di koy sànni ci mbooleem àddina bi lépp bëgg la ñépp lay bëgg du yem rek ci yàlla bëgg la waaye yàlla subhanahu wa taala mooy def lépp bëgg la jinne yi danañ la bëgg malaaka yi danañ la bëgg mbindeef yi danañ la bëgg rab yi danañ la bëgg gis ngeen daawud alayhi salaam faqad raayna kaana alkawnu kulluhu yuhibbu daawud alayhi salaam gisoon nañ daawuda adduna bi lépp ko bëgg xeer yi sax dañ ko bëggoon jàngeen ci alquran alquran yàlla mu ne yaa daawud wa qul wa yaa jibaal awi bi maahu bu doon jàng sax tawraat zabour bu daan jàng zabour da ngay dégg xeer yi di répété la muy wax picc yi di wax la muy wax gis ngeen bi mu faatoo moo tax bu la yàlla bëggee rek lépp bëgg la kan ci ñun fi moo bëgg yàlla bëgg ko anamu bëgg ngeen yàlla bëgg leen bëgg ngeen ko lan ngeen di def ba mu bëgg leen mooy dañ koy topp buñ ko toppee rek mu bëgg ñu suñu bëggee lu muy def mooy day wax àdduna bi yépp nan nu bëgg lépp nuy bëgg yal nañu yàlla bëgg juróom benneel mooy ann al abd la budda an yastamila nicma allahi alayhi fi kulli ma yanfauhu fi diinihi wa dunya ab jaam li ko yàlla may ci ay xéewal foog mu jëfandikoo ko ci diineem ak ci àddunaam ndax gis nañ daawud li ko yàlla may ci kàttan ak xéewal daawuda daf kaa jël def ko ci topp yàlla ci koor ci naafila ci sàbbaal ci defar ay mbubbu geer ak yeneen ak yeneen di ko jëfandikoo ci diineem ak addunaam kon yàlla tabaraka wa taala su la baaxee wér wér googu jeexal ko ci topp yàlla su la yàlla mayee doole doole jooju jeexal ko ci topp yàlla su la yàlla mayee alal alal jooju jeexal ko ci topp yàlla su la yàlla mayee xam-xam xam-xam boobu jeexal ko ci topp yàlla ndax daawuda kat bi ko yàlla mayee mu am lii ah lan la ko jëfandikoo mooy ci woor guddi woor bëccëg julli guddi julli bëccëg di sàbbal fu mu toll waaye di liggéey jàngeen yonent bi mu ne nabiyullahi daawud kaana yaamalu min amali yadihi moom daawul lekk lu dul ñaqam luñ ko indil xamul fu mu jógee du ko lekk moom lan lay lekk mooy lu mu liggéey rek ba ñu fay ko ci xaalis bi xaalis boobu lay jël doog a lekk du lekk lekk lu lekk lekk keneen daawuda lan la doon liggéey ay yére guerre la doon defar yére yoo xam ne weñ lañ koy defaree boo ko solee bu ñu la dóoree jaasi du dugg bu ñu la jëmee paaka du dugg bu ñu la sànnee xeej du dugg mbax na yooyu ak yére yooyu la daawuda doon defar waaye loolu yépp daf koo jël daal di koy delloo ci topp yàlla tabaraka wa taala juróom-ñaareel bi ñuy jëlee ci dund yonent yàlla daawud mooy ann alqaadi yambagi an yaxkuma bayna snayni laa yambagi an yaxkuma bayna snayni illa ida stamaa lahuma attekat kooku ñu naan juge attekat amul droit atte ñaari nit lu dul dafa déglu ñoom ñaar ñépp bu la yàlla mayee nga nekk attekat ñaari nit am histoire ñu wax la ko kan ngay déglu kenn ki mooy ñëw wax rek nga daal di jàpp keneen ki daal di tëj ci kaso bi déedéet da ngay woo ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw nga déglu leen ñu wax kenn ku nekk nga ni leen lu ngeen jote kenn ki wax ba mu jeexal nga déglu keneen ki mu wax ba mu jeexal yow nag léegi nga doog a atte lii fan lañ ko jëlee mooy daawud alayhi salaam benn waay ñëw na rek daal di koy wax benn wax rek mu daal di àtte yàlla yeddu ko ci loolu moo tax ñu ne àttekat du dagan ci yow du yell ci yow ngay àtte ñaari nit lu dul ba nga leen dégloo ba pare xatta yastati an yaxkuma bil adli duna al mayli ila al axar loolu moo lay dimbali nga mën a atte ci dëgg nga bañ a jeng dem ci keneen ki waaw benn jigéen dafa ñëw ci benn buur di jooy man sama jëkkër lim ma def nangam ak nangam rek buur bi mu ne dem leen ngay indi jëkkër ji ngeen caw ko tëj ko ci kaso bi ñi toogoon ne ko déet mbokki yuusuf ya dañoo def seen tojaange ba pare ñu ñëw ngoon ci seen baay di jooy est-ce que ku jooy rek yaa moom dëgg yenn saa yi nit dina tooñ ba pare di jooy mooy latama nii wa saaha mbéj ba pare nga mbéj kenn ba pare kan moo war a jooy ah ki nga mbéj waaye yow mi mbéj nga taxaw di jooy te yow yaa mbéj moo tax ñu bëgg ab attekat balaa ngay atte nga déglu ñaar ñi xuloo ñaar ñi xeex ñaar ñi am problème nga déglu leen soo leen dégloo ba pare yow nga atte loolu jàng nañ ko ci xissa daawud juróom-ñetteel moo tax xam ngeen ne atte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na attekat yi ñaata lañ ah ñett yonent bi nee na ñaar ñi safara lañ jëm attekat yi ñett lañ yonent bi nee na ñaar ñi safara lañ jëm lan moo yóbbu ñaar ñi safara kenn ki xamul dëgg ba pare mu dem atte te xamul mu atte safara la jëm kenn ki xam na dëgg gi waaye da cee teg tànkam safara la jëm keneen ki nag moom dafa xam dëgg atte dëgg mu dem àjjana atte yàlla ko moom inil hukmu illa lillah atte yàlla ko moom alaysa allahu bi ahkami alhakimin wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun ñett yàlla nee na képp ku atte woo leneen lu dul li ma indi yow yéeféer nga kàccoor nga tooñkat nga kon atte yàllaa ko moom moo tax ci yenn boroom xam-xam yi jàngale tawxid dañuy jàngale tawxid ñu ne salaasatu anwa waaye am na ñeneen ñoo xam dañ ko jàngale ñeenti anwa ñoom dañuy wax tawxidul uluhiya tawxidul rubu rububiya tawxidul xaakimiya tawxidul asma wa sifaat ñoom yemalewuñ ko ci ñett ñoom dañ cee dugal atte ndax atte yàllaa ko moom inil hukmu illa lillah beneen bi mooy juróom-ñetteel alayka an taqbala alxaq wa nus min ayi insaan walaw kaana saxiran dañu bëgg nit ab jullit mu nangu dëgg mu nangu laaye biir ku ko mën a wax yow lu la war a intéressé yow jullit mooy dëgg rek dëgg laa bëgg léegi nag dëgg boobu ku ko mën a wax yow da nga ko war a jël war a wax kii kii wax dëgg bi de xale la na dem ne déedéet kii wax dëgg bi de dafa ab jaam la déedéet kii wax dëgg bi de moom amul xaalis amul alal déedéet dëgg rek yow moo la intéressé yonent bi nee na dëgg fu ngeen ko fekk jël leen donte ne yéeféer yi ñoo ko indi am koy jël gis nañ daawuda li mu nekk buur nekk yonent suleymaan indil ko dëgg doomam mu daal di jël rëyul waxul kii sama doom la loo fii def sax yow ba ngay déglu lii acca ci biir dugal ci biir néeg bi xaar ba gisaa la nga génn déedéet comme yenn paa yi nu ñuy def bu leen seen doom waxee dëgg ñu am problème wala ñu ne xale bi dafa réew waaw déedéet dëgg yàllaa ko moom dafa am benn benn buur bu falu gaa yi di ko ndokkeel adduna bi yëpp yónnee ay nit ñu koy ndokkeel waa Iraq ñu yónni benn xale xale bi jiite délégation bi délégation bu dugg rek génn beneen dugg ba waa Iraq seen bos jot ñu dugg rek xale bi taxaw ci kanam daan ne buur bi amirul muminin ñoo ngi lay ndokkeel ñoo ngi lay ñaanal mu ne ko noppil noppil xale bu ndaw bi ñi ñi ñi kan moo ànd ak ngi kii ñu ne waa Irak ne ñun la mu ne na na arrière keneen ku mag ñëw wax xale bi ne ko buur teg maa bàyyi ma eggali ba pare mu ne eggali mu ne ko mbir mi bu doon ay at la fii nga toog doo fi toog ndax am na ku la mag mu ne ko hee waxal waxal waxal waxal waxal mbir mi du ay at bu doon ay at la fii nga toog kon ci xeet bi am na ko fi war a toog kon mbir mi du at bàyyi ma ma wax mu ne ko waxal yow war ngaa wax moom bu doful woon waa Irak ni ñu toll dinañ jël benn xale jiital ko kon xale bi sax bu ñëwee taxaw mu def attention ah kii kat lan moo tax ñu ñu indi ko lan moo tax ñu jiital ko du xale kese kese kese kese Omar ibnul Xataab da daan def fu mu toog rek moo Abdullah ibnu Abbas mu ne kaay toog sama wet taxu toogal fii yow ndeke kibaaru saxaaba am na ñu ci ñu ci seen xol yi di ñeggi ñeggi xale bu ndaw bi fu ñu toog rek mu toog xale bu ndaw bi fu ñu toog rek mu toog xale bu ndaw bi fu ñu toog rek mu toog Omar daal di koy yëg mu bàyyi benn bis ba ñépp toog Abdullah ibnu Abbas da tëdd rek mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko toogal fii mu toog rek mu ne yéen dégg naa da ngeen di wax ne man saa yi ma gisee Abdullah ibn Abbas dama koy indi ci biir mbooloo mi mu toog gars yi ne ah noppi ñëpp noppi mu ne léegi damaa bëgg ngeen firil ma isa ja nasrullahi wal fatu ngeen firil ma ko yéen ñëpp par kenn kenn mu tàmbalee ci mag ñi gars yi ne waaw bismillahi rahmaani rahim isa su fekkente ne jaa a ñëw na comme niñ koy firee rek nasrullahi ndimbalal yàlla wal fatuhu ba nga ubbi màkka wa raayta annaas di nga gis nit ñi yadxulu na ñuy dugg fii diinillaahi ci diine yàlla afwaaja nekk ay mbooloo mbooloo fa sabbih dañu sàbbaal bi xamdi rabbika sant sa boroom wastaxfiruhu nga jé ñu jéggalu ko innahu moom yàlla kaana mustadañ tawaaban di nangu tuub gaa yëpp firee noonu saar bi ñëpp kibaaru saxaaba ñëpp firee ko noonu mu ne lii ngeen ci xam ñu ne waaw mu ne Abdullah ibnu Abbas firil ma ko Abdullah ibnu Abbas jóg taxaw mu ne balaa ñu koy firi lu njëkk a wax mooy saar bi daa wàcc di tàgge yonent bi ah gars yi commencé xoolaat xale bi moom tëbul rek commencé firi baat yi dafa njëkk a wax saar bi lu tax mu wàcc mu ne ñaareel bi saar bi daa wàcc di xabaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow sa dund jeex na da ngay dee kon nag ndimbalal yàlla dina ñëw yàlla dimbali la nga ubbi màkka nga delluwaat fa ubbi ko daanil xërëm yi mu firi ko firi boo xam ne ñoom ñépp jaaxle nañu bi Abdullah ibnu Abbas pare Omar daal di laaj kibaaru sahaaba ne leen waaw yéen Abdullah ibnu Abbas xale bii li mu wax ni yéen xamoon ngeen ko gars yi ne ko ah ñun koy xamuñu ko woon mu ne lii moo tax su ma toogee ma wax ko mu toog lii moo tax su ma toogee ma ni ko kaay toog ndeke du xale kese kese kese Sénégal nag moom boo waxee ñu ne diiney xale xale yi xale yi dañoo contre mag ñi xale yi xale yi ah nangam nangam xale yi xale yi xale yi diine amul xale alxuraan 114 saar la mi ngi tàmbalee fatiha mi ngi yem mi ngi tàmbalee fatiha mi ngi yem naas est-ce que ci aaya am na yaa ayyuha siraar yéen xale yi yaa ayyuhal kibaar nag yéen mag ñi am na ci li ci am mooy yaa ayyuhal insaan yaa ayyuhal lazina amanu benn yaa ayyuhal lazina kafaru la alxuraan am benn yaa ayyuhal lazina kafaru ban saar la nekk ah tahrim tahrim benn la yaa ayyuhal lazina kafaru la ta'tazirul yawma innama tujzawna benn aaya boobu moo am ci alxuraan yàlla ne ee yéen yéeféer yi benn boobu la benn amul beneen li ci des yépp yaa ayyuhal lazina amanu yi ñaata la yaa ayyuhal lazina amanu ci alxuraan ñaata la ku ko wax rek ma may la montre ñii nii ñii ñii ana xaafis yi ana xaaf xufaas yi ana ñu subhanallah may naa leen ba àllarba bi di ñëw kon nit dafa war a nangu laaya biir nit dafa war a nangu dëgg min ay insaanin walaw kaana asgaru minka sinnan donte ne moom moo la gën a tuuti ay at donte ne xale bu ndaw la donte ne yow pàppaam nga donte ne yow maamam nga donte ne yow buuram nga donte ne yow chefam nga moom su la waxee dëgg da ngaa war a nangu dëgg bi donte ne xale bu ndaw la faqad qabila daawud hukma suleyman daawuda yonent la buur la pàppa la waaye nangu na atte suleyman te boobu suleyman xale bu ndaw la bu tuuti lan la lan la daawuda defoon ba suleyman ne ko man de bu doon man du ma def loolu mu ne ko nooy def mu ne ko nii laay def mu ne ko defal mu def ko mu ne ko nangu naa boobu ñaari jigéen dañoo demoon ci àll bi ñu demee ci àll bi bukki yi ñoo lekk doomu kenn ki ñoom ñaar ñoo tegoon xale yi bukki bi ñoo lekk benn doom bi xamuñu ban doom doomu kan la ku nekk ñuy jiiroo doom bu des waaw ñuy jiiroo doom bu des bi ku nekk ne maa ko jur sama doom la ñu dem ci Daawud benn maire bu màgget la woon ak benn xale bu jigéen bu ndaw benn maire ak benn xale bu jigéen ñu koy xëccoo daaw de daal di yërëm mag ku mag ki mu ne ku mag ki ah, kii ko- ku mag ki moo ko jur ku mag ki la jëlal demal nga dem rek fekk boobu Souleymane mu ngi toog xale la mu ne papa ma loolu nga def d'accord ma ci de mu ne la ah loo d'accord mu ne nañ ñëw ma attewaat leen mu ñëw mu ne maire bi ku jur doom bi maire bi ne ma- maa ko jur mu ne xale bu jigéen bi ku jur doom bi mu ne maa ko jur mu ne waa lii xaaral ma def xaaral ma xaaral ma xaaral xaaral ma ma atte leen mu ne indi leen ma jaasi ñu indi jaasi mu ne ñawal leen ko ba mu ñaw ñu ñawal ko ba mu ñaw mu ne indi leen liir bi ma ma dagg ko ci digg bi ku nekk ma séddale leen ko rek ku ji xale bu jigéen maire bi mu ne waaw kay defal noonu séddale ñu ko xale bu jigéen bi mu ne déedéet buñ ko bul ko def noonu ndax sama doom la bul ko dagg kon jox ko ko rek kon jox ko ko bul ko def noonu ndax sama doom la léegi man na ko jël na ko jël comme da ngaa ko bëgg ñu dagg ko léegi na ko jël maire bi moom mu ne déedéet déet nañ ko dagg ci digg bi ñu seddoo ko est-ce que bu ko juróon dina nangu loolu Souleymane daan ne ko yow juróo doom bi doom bi kii moo ko jur daal di koy dox xale bi xale ba dem Daawuda fekk mu ngi toog Daawuda mu ne nii te boobu Souleymane xale bu ndaw la gis ngeen kon ndeke dëgg bi li ñuy wax puso bi puso bu réer la paa bi mun na ko for xale bi mun na ko for kon dëgg la fu mu jógee rek da ngaa war a jël waaye waroo wax ne xale moo ko wax waaye man duma jël yuxu xale déedéet juróom-ñeenteel mooy al muslim laa budda an yakuna gayuuran ala nisaihi julli dafa war a fiir su amee ay doom yu jigéen wala mu am jabar wala mu am ay rakk yu jigéen wala ay mag yu jigéen daf leen war a fiire war a bàyyi say doom yu jigéen wala say soxna wala say mbokk yu jigéen nga bàyyi leen ñuy lambar lambari ci dëkk bi dugg ci góor ñi wala góor ñi di fa ñëw comme tey nu ko waa Sénégal di defee ah ku nekk di wane ne man dëgg-dëgg man damaa ah fiiruma damaa lii la loolu musiba la jullit day fiire njabootam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn fekk saxaaba yi di xas benn saxaaba boo xam ne dafa ne man de bu ma fekkee góor sama kër muy seet si sama waa kër dama koy dóor jaasi mu dee gars yi di ko ne yow yow da ngaa ëppal ah yow ah yow ah yow yonent bi ne lan la ñu wax ko mu ne wallaahi kii maa ko gën a fiir te man yàllaa ma gën a fiir jullit day fiir daawuda gis nañ ne ku fiir la woon lu tax mooy bu daan génn këram day tëj jigéenam yëpp ci biir da leen tëj ci biir néeg tëj buntu kër gi tëj saal bi tëj buntu kër gi jël caabi ji dugal ci poosam dem benn bis mu ñëw rek bu fekk benn waay toog ci benn chaise piliyaan bi muy toog waa ji toog ci te waa ji dajjiwul buntu yi ñoo toog fi muy toog mu ñëw ne ko kii kan la waa ji ne ko man la koo xam ne caabi munumaa téye buntu munumaa téye mu xam ne kii malakal mawti la waaw loolu xista bi passé alarba bi passé loolu lañ doon jàng xista bi passé alarba bi passé loolu lañ doon jàng ndeke waa ji daa ñëw pour jël si ko kooku mooy malakal mawti dafa ñëw pour rey ko mu ne ko yow la kan mu ne ko man la may ki nga xam ne caabi mënumaa téye buntu mënumaa téye man ragaluma buur ragaluma borom dolle borom doole ragaluma fetal ragaluma jaasi mu ne ko yow la malakal mawti mu ne ko waaw mu ne loo fi def mu ne yow laa jël si da ngay dee mu ne ja mënoo ma ko woon wax ma préparé mu ne ko ana sa papa mu ne dee na mu ne ana sa yaay mu ne dee na mu ne ana sa maam mu ne dee na mu ne ana sa dëkkandoo bi mu ne dee na mu ne xamoon nga ne yaa ciy tegu bis bu nekk nit ñi dee nga yóbbu leen bis bu nekk nit dee nga yóbbu ko armeel bis bu nekk nit dee nga yóbbu ko armeel bis dina ñëw nga dee ñu yóbbu la da ngaa xam ne yow yow yaay yóbbuwaate rek yow doo dem waaw déedéet waaw moo tax borom xam-xam yi ne ki perte dëgg-dëgg mooy ki yaakaar ne moom dafa toog fi rek di yóbbuwaate waaw di yóbbuwaate bisa ngi ñëw yow mii la ñuy yóbbu te buñ la yóbbee doo ñëwaat allahu akbar man asamaat wa man maat faat maa li ara nnaas yazhabun summa laa yaudun ahum taraku fanaamu am tafaddalu lbaqaa fa baqaw benn dof dafay jaar ci benn koñ rek mu ñëwee rek eh dof baa nga ñëw dof baa nga ñëw dof baa nga ñëw eh waay waay dof baa nga nii benn bis mu ñëw rek ñu ne ko waa yow yow yow yow doo ñu waxtaanal tuuti mu ne ku dund dee ku dee ñu fàtte la ku dund dee ku dee ñu fàtte ko mu ne bés bu nekk nit ñaa ngi dem te buñ demee duñ ñëwaat bés bu nekk ñu ngi yóbbu nit ñi suñ leen yóbbee duñ ñëwaat mu ne ndax foofu dafa neex ñu bàyyi leen fa ñuy nelaw wala dañoo bëgg a ñëw ñu téye leen gars yi ne yee kii doful kii doful kii doful lu mu wax kan moo ko mën a dindi ku dund dee d'accord ngeen ci wala ku dund rek dee ku dee ñu fàtte la boo amoon kër ñu jaay kër gi boo amoon jabar keneen takk ko boo amee alal ñu séddoo ko boo amee ay yére ñu séddoo ko fàtte la ndeysaan ku dee ñu fàtte la mu ne maa ngi gis nit ñi ñu ngi leen di yóbbu te kenn du ñëwaat maa li aran naas yazhabun summa laa yaudun maa ngi gis nit ñaa ngi dem te kenn du ñëwaat dëgg la wala dëgg ku ñu dem armeel yi ba ñu gas ba mu xóot suul la nit ñi ñooy ñëw waaye yow doo ñëwaat mu ne ndax foofu ñu leen suul dañ leen faa bàyyi ñu nelaw wala dañoo bëgg a ñëw ñu téye leen ban moo ci am allahu akbar kon mbokki jullit yi jullit dafa war a fiir soo amee njaboot gu jigéen nang leen fiire bu leen bàyyi rek yooyu lambar lambar yi ci dëkk bi di sol ay tubéy def ay yaramu neen fu leen neex dem fu leen neex yenn yendu fu leen neex fanaan fu leen neex ñu dugg ku leen neex mu ñu ànd ak moom jullit bu mel noonu jullit dafay fiir ndax yàqu daawuda dafa fiiroon fukkeel bi ñuy jeexale dars bi may anna allaha yukrimu al abdu salih inda mawti yàlla day teral jaam bu baax buy faatu nit su baaxee nit soo nekkee ku baax koy jaamu yàlla yàlla dina la teral balaa ngay dee waaye bis boo dee sax yàlla dina la teral daawuda dafa nekkoon ku baax bi muy dund yàlla teral ko waaye bi mu deewee sax yàlla daf kaa teral nan la ko yàlla terale mooy daawuda bi mu deewee bët set jant bi dafa tàng bëccëg bi biñ koy suuli ci xam nga lan moo xew yàlla yónni picc yi picc yi ñëw ñëw daal di def ni ràbb asamaan bi ba jant bi laalul nit ñi picc yi ñëw ñëw nekk ay parasol tàllal seeni laaf ba jant bi mënul laal nit ñi ñu keral nit ñi picc yi kon ñaata picc la dañoo muur jant bi ba jant bi génnul ndax taraanga boobu la yàlla may daawud alayhi salaam allahu akbar lu tax parce que ku baax la woon parce que yàlla daf kaa bëgg moo tax même bi mu deewee nit ñi dañoo gis loolu picc yi ñoo keral nit ñi ba tàngaay bi laalu leen suñu dars bi passé loolu lañ doon waxtaanee mu ne gis nañu faqad ra'ayna kayfa zallat at-tayr fawqa daawud alayhi salaam inda mawtihi hatta la tuzihi sams dañoo gis picc yi tàllal seeni laaf musal ko ci tàngaay bi ba tàngaay bi laalul sax néew bi tàngaay bi laalul néew bi ba ñu suul ko ba pare picc yi tasaaroo loolu yàlla moo ko terale kon lii fukki tomb la yu ñu doon jëlee ci xissa daawud bismillahi tabaraka wa taala bu ñu fi yàlla bàyyee ba samedi ba àllarba ñoo ngi jël suleymaan alayhi salaam yàlla na yàlla may ñu fekkee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu